dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. Eh, nanguwuñ ko dégg mooy ak dem prison bu leen ko nangu bu demee prison di ngeen am lu leen metti parce que Ousmane Sonko bu demee prison ci loxo yi ñi ko gën a noonu la dugg muy Macky Sall Macky Sall kon xam na ne moom diggam ak Sonko moom affaire politique politicien doxatu ci affaire an moo ci dugg affaire mbañal moo ci dugg affaire alxadaawa ak ah, question règlement du compte la parce que yaa ngi bëgg yor am réew éternellement yow ak say mbokk yéen fi wéy ne dégg nga yow ne léegi moom mënuluma ngeen na ca ba yow mu jàggi la ko am na nag ay nit Macky Sall naa rek bu doon moom dong mënul tëj Sonko dama ko wax ngeen ku ne di dal sama kaw mm-hmm. waaye Macky Sall doodu jum tëjee Sonko amu mbir mi mbir mi jàll du jàlloon Macky Sall du moom mooy koy tëj Sonko du ko du ko tëj dafa am ay ndimbal ndimbal yooyu nag Sonko amu ko waaw parce que Sénégal fii nii euh, maanaam chef religieux ak état dañoo mujj ànd di jàpp dañoo mas di ànd ñooy jàppalante loolu kenn du ko chef religieux ak état ñoo mas di ànd si mas di ànd di jàppalante waaw bu état problème chef religieux yi jàpp bu chef religieux yi dee def seen i cant seen i màggal état jàpp ñoom ñaari kuréel la yoo xam ne kenn ku ne bu sa morom nee ci def yi da ngay taxaw léegi euh, Sonko problème boobu la am te ñii ñoo yor pouvoir yi comme euh, que pouvoir présidentiel ak pouvoir spirituel ñaari pouvoir yi bu ñu àndee maanaam pour nit pour ku leen dëggee day jafe. a euh, dëgër wala maanaam xiif euh, dëgër foo xam ne à chaque fois nit ñi ñu ko ñaan wala ñu koy jéem a euh, sant ci loo xam na man damaa jàpp ne man man xam nga man nag damaa jàpp bi xam nga man wax saa su ma ko li gënoon mooy ku may wedd rek nga teg lu leer daal. waaw kenn ke waaw kenn benn kenn di ma saaga ku bëgg a saaga saaga amul benn problème. bëgg a saaga saaga man moom saaga sama chef xam ko sax ba sama dérange ah. waaye ni ñuy def ci maanaam ne dañuy ñaan ci kaw te publiquement woo seen journaliste ba dégg nit ñi ne sax buñ ñaanee ñëw danañ waxaat ci kaw nañ jaxaat noonu rek buñ ko defaatee nag ñun ñu xam ne ñaan nañ xam nga la baax ndax dañ ñaanale woon Macky Sall nañ ko ñaanalee sonk waaw xam nga Sonko fi ne li mu soxla il faut ngeen xam ni du dara lu nañ ko génne ci kaso bi yii nga ngeen def yëpp da ngeen doon rek loolu la loolu la soxla génne ci pression bi parce que bi mu nekkee ne Macky Sall nekkee wu ko woon te 2021 ba ndax Macky Sall dama gutoon prison genn gutoon palais teegu jàppaguñ ko woon xiifara gutoon marala gutoon nekk gutoon dans les communs te Sonko mi ngi ci te loola ngeen defu leen ko man wax naa dëgg wax ma dëgg wax naa dëgg naa dëgg léegi nag wax naa dëgg mooy fii Sénégal dafa naqari mooy dëgg ñu ne li tax wax wala ma wax moom yéen ñëpp xam ngeen man wax dëgg ku ma ngeen wax dëgg ko tax wax naa dëgg loolu nag defe naa ne sa am réew wala ay nit waruñoo toll foofu daal nit wax dëgg ñoo ko daan ngay wax de